sunu gaynde yi ginnaaw ba ñu amee seen congante bu njëkk ci coupe d'Afrique des nations atum 2022 foofee ca Cameroun sunu gaynde yi nag doonoon na match boo xamante ni ñoom ak Zimbabwe euh, mu doon euh, première euh, journée bu groupe B Sénégal ñoom nag ñoom ak Guinée ak Malawi ñoo bokk pool waaye nag génn nañ ak li nga xamante ni mooy 3 points ginnaaw ba ki nga xamante ni mooy Sadio Mané dugalee bio bu njëkk ci coupe d'Afrique des nations ci 96e minute rek la ko dugalee si ab penalty bi nga xamante ni ñoom ñoo ko amee rek zoro Zimbabwe wala défenseur Zimbabwe rek moo football bi ñu am li nga xamante mooy penalty waaye waaye am na ñoo xamante li nga xamante ni euh, si gën a joué nañ ci gën a nemmeeku euh, Sadio Sadio Mané bi nga xamante ni moo dugal bii bi ak kii di Idrissa Gana Gueye moom nag mu doon ab capitaine boo xamante ni dafay ñaax ñi nga xamante ni ñooy ngir ñu joxe ñu euh, ñu tooyal li nga xamante ni mooy seen maillot waaye nag Bouna saar bi nga xamante ni la convocation sénégalais yëpp si doon lii di IAB bi moom nag rassuré na li nga xamante ni mooy ailier droit bi réussir na bu baax a baax waaye nag gardien euh, boobee di international sénégalais nekk foofee ca Angleterre championship ci di jeex moom nag tiital na ki nga xamante ni mooy Edouard Mendy ginnaaw match bu baax bu am solo bu mu def digganteem Sénégal ak ñii di waa Zimbabwe waaye nag ñi nga xamante ni ñoo ëpp flop maanaam ñi nga xamante ni dañoo passé à côté euh, ñu nañ see nemmeeku kii di Ibrahima Mbaye moom nag ñu ngi laaj est-ce que war nañ ko jox place de titularisation si li nga xamante ni moo des si compétition bi ki nga xamante ni nag mooy Fodé Ballo-Touré nekk foofee ca Milan di ab latéral gauche moom itam profité wul benn yoon si ki nga xamante ni euh, mooy euh, Saliou Ciss ginnaaw ba mu bokkale si li nga xamante ni mooy match bu njëkk kii nga xamante ni mooy Diao Baldé Keita moom rek gisuñu ko benn yoon mu yokk ko li nga xamante ni mooy niveau am ak équipe nationale bu Sénégal est-ce que dañ ko war li nga xamante mooy essence ngir mu ñëwaat en forme waaye nag ginnaaw Ismaël Sarr mu blessé i Baldé Keita rek war na am sens ngir bokkaat si euh, onze type bu équipe nationale bu euh, Sénégal.